ba mot li naa yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba wax ji nag du gudd lool ndax sama kilifa yi ma jiitu li ma waroon wax lépp wax nañ ko kon nuyoo bi ñu ngi koy tàmbalee ci njiitu réew mi président de la république Macky Sall ci kàddu yi nga xam ne Serigne bi yóbbante na ma ko ci moom ci seen diggante ak cant ak ngërëm. ak mboolem délégation bi mu àndal bépp te buñ ci tuddee ministre intérieur di suñu wëllër bu yàgg tudd ci Alioune Sow mi nga xam ne ñu ngi ko doon tudd léegi waaye tudd ci suñu wëllëre di Mamadou Makhtar Cissé nga xam ne sama ñaari kilifa moo moom muy sëñ Sidi Mokhtar ak sëñ Serigne Abdoulaye Cissé Al Amin yàlla na suñu borom seen leer. di siyaare bu baax suñu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo ma jëkk ci jiiti kàddu yi tàmbalee ko ci sëriñ sërif ibnu cheikh mahamadul fadil mi nga xam ne yàlla def na xalaatu miise bi ci moom la njëkk a jóge moo ko njëkk xalaat tàmbali ko am ci yitte am ci yéene ak taxawaay bu mat sëkk mooy jàmbaar loolu itam di jub te dëggu te rafet xol te jàng li ñu war a jàng lépp ba yàlla def kon le Cheikh Abdoul Ahad Mbacké doon wax ne la sur in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum yàlla dafa wax ne bu ngeen ma sàkkalee aw lay danaa leen dimbale kon ñoom Xaadim Ngom ñii ñëw fekk si ko ci biir liggéey bi jàpp naa ne tawféex la ju ko suñ defal ci liggéey bi ndax yàgg na cee sonn waxtoo mag alaala mag léppam def na ko ci kon yàlla na ko suñu borom dimbale ba naalu yi nga xam ne sëriñ bi teg na ko ci loxo mu àgg na ko bëgge ba sëriñ bi ubbil ko boppam ba adduna sëpp di ko jëriñoo day ci teg sëriñ Ahmadou Bari yu Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Fadel moom itam li ma seere ci sëriñ sërif rek moo nekk ci moom di jàmbaar ndax xam ngeen mujj mujj moo Cheikh Ahmadul Xadim bi nga xam ne mooy université Touba bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ba mu toogee jotaay bi Sëriñ Touba dafa wax ne sama yitte jépp maa ngi ko jëmale ci université bi yàlla defit ba mu xalaatee mu doy ko ci waaye yàlla def na dëggal na yaakaar ja ndax taxawu na ko ci biir taxawu ko ci bitti xam ngeen ne bari na lum daa yënguti ci wàllu koom-koom waaye lépp doo ko teg ci suuf xëyatul fenn xëyatul këram boo xëyee ci université bi lay yendu ba guddi yàlla suñ borom defal na ko ci ndimbal ndax yëkkati lu rëy noonu mu sotti ci lu ëpp ñeenti at bëriwut kon moom itam loolu ñu ñaanal Serigne sëriñ rek lañ ko ñaanal yàlla ko suñ borom dëgëral ndax bokk na ci jàmbaar yi nga xam ne Serigne Touba mi ngi leen di puukare waaye nag lépp nag xar baaxi seen waajuru tedd rek la Cheikh Maodo Faril ndax ñoom ñaari ñi kat ku xam na ne bi ñuy feeñ xamuñ dara ci sëriñ bi te tey boo doon xool ci réew mi ñu ëpp ëpp njàng ci lañ bokk yàlla def na itam ni ñu amee xam-xame ni lañ jube tegoo ci yoon loolu too feex delloo gu suñ borom fay ju fay suñ fàllu di nuyu itam sama doom sëñ Basiiru Mbàkke suñ xaari aw ba moom itam daanaka li sëriñ bi yóbbante la ci ëpp ci kàddu yi cant ci président jiitu na ma ci wax ko xam naa faw ma waxaat ko ndax yóbbante waaye lépp wax na ko mooy it itam sëriñ bàkk yu fay mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ bi ci ndakaaru moom itam muy jàmbaar ndax sëriñ Tuubaa ko gën a jëmoom la rasulullahi waxoon ne kenn ci yéen ak ngëmam du lu dul ma gën ko jëmmam war na mën a sëriñ Tuubaa gën jëmmam ndax mën naa joxe bakkanam mën naa joxe alalam ngir jëm sëriñ Tuubaa di ko jeexale ci xaadim Ngom mi nga xam ne yàlla def na lii ci moom la ko suñ borom jaarale mu def ci yitte ak positif ak taxawaay wax naa ko ko léegi nee naa ko Serigne Touba nee woon na sama bis bii di màggal gi képp ku ci feeñ koo dendal yaa koy sut ba faw suñ sali ko daa wax nee naa ko nag gëm naa ne li ngay daj ci màggal gi di seet lu mat ay junniin mbaa nga di ko taal di ko jox nit ñi lii bokk na ci la Serigne fay kon ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp tàmbalee ci ñi ma waroon a jiital nag muy këri diine yi suñu bokk këri diine yi ndax ñoom ñoo bokk lépp lépp lu xew le ñoo cay jiitu ñoom itam lépp lu xew le ñu ànd ko ñoom loolu mooy li nga xam ne mooy li am ci Sénégal di ñaan suñ borom saxal ko ndax li ré wutale Sénégal ak réew yu ci des yëpp mooy mboolem turuxu suufi yi fi nekk li leen wutale lu néew la loo xam ne bokk ci principe bi mboolem luy principe bi ñoo ko ànd ñoo ko dëppoo moo tax Sëriñ Tuubaa tari nañ ko fi léegi waxoon na ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yahida sawaun intama ila aljilaani aw intama li ahmad attijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawaabi kon ñoom itam ñu ngi leen sant di sant mboolem bokki taari bi fi teew yëpp di jottali nag cant kan cantu sëriñ bi du Mouhamadou Mountakha jëme ko ci prisident ndax nee lam la waxoon màggalug daaw du màggalug ren gii nag daaw nee ba nga ñëwee dalaa waxoon ne la bis bi wax na ko sax ñëpp dégg xëy na nit ñi dégguñu woon la bëgg a wax boo dane bëgguma ko bu ko kenn teg soxla ba nga accès mooy la bis bi daal yaa ko moom nee na nag bis bii tam neen na loolu la lay fedd wat ndax sa digg moom dafa yàgg te li ci ëpp may seere si ndax nee na xam na ne liggéey Serigne Touba bii nga xam ne moom amul lu moom wóor na ko ne xalifa Serigne Touba yee ko jëkk ñañ dajee leen tool wóor na ko ne leen ko defal féetuwuñ ko lu lu yës foofa lu ko ndax lépp lu mu yëkkati rek ànd nga ko moom la jëkk muy nekk Serigne Touba boobu Cheikh Sidi Moustar ne fi ñu yëkkati jumaay Massalikul Jinaan boobu nga door toog ci jotaay bi la jëkk ca ca def mooy joxe nga ci un milliard addiya boo xam ne yaakaar naa ñu bari xamuñ ko bis ba nga koy joxe booba maa ngi jëm aéroport jëm Gabon ñu bëgg suñ Sidi Moustar fekk ko tawfiix nga jox ko ko ne bëgguma kenn jëkk ko loolu jëf ju rëy la yemoo ci it suñ bàkk yi mën na koo seere mboolem du doon assainissement ak i tëli ak éclairage public lu jege fukki milliards def nga ko fa kon loolu jëf la joo xam ne yoon wi nga ko defal Sëriñ Tuubaa nga ko jëfal ba ca des saatit biir Tuubaa yi ne fàng ñëpp xam nañ ko waaye li ci mujj rek mooy université Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax loolu tam day seere soo xam ne faaw mu ko boo ko sëriñ bi yëkkatee woote ko ci rajo bi sëriñ bi dama yónni ci moom ci yeneen yitte ba ma demee wax ko li ma sëñ noonu ba noppi mu ne man de dama laa bëgg a yóbbante wax ci sëriñ bi ndax nee ko lii mu yëkkati université dafa am njëriñ ci réew mi ndax ndaw yi faw ñu jàngal leen yar leen bañ xam li ñu war a doon mën a amal njëriñ réew mi ëllëg projet bi nag diis na ndax 37 milliards xam naa ne tuutiwut waaye li ma bëggoon sëriñ bi bàyyee ma ko état bi defar ko boppam ma noppi jébbalaat ko ko. buñ ko mënta def ci mel ni at danañ ko def ci ñaari at maa ngi la kon danaa ko ko àgge ba ma demee ba wax ko sëriñ bi sëriñ bi sant ko ne ko nee ko jëf yéen mooy mooy jëkk yàlla day fay yéen dooru fay jëf waaye nag nee ko bu ma sañoon taalibe ni ñu baaxoo comme woote naa ko ma bàyyi taalibe suñu tuwaay barkeelu ci tabax yi leneen li ci des nag li jëm ci jàngle jàngalekat yi ak li jëm ci assainissement bi ak tëliya lu mu ci man mu def ko fa sansa nga fa ñëwal su bopp suba teel laata nga ñëw sax nga yëkkati ay milliards jox ko ko addiya ne ko ma soobee sama digge yow la yem Cheikh Mouhamadou muntaha ku ko ku ko dégg moo ko wax ndax nee na ndegam Sëriñ Tuubaa tax nga jëf ko du jëf ju war a nëbbu ba ba mu demee ba àgg itam liste moom njëkk defar muy ay jàngalekat mu jox ma ko mu andil la ko ba mu dikkee ñëpp état bi jël leen mu andiwaat beneen liste nga jëlaat ko yemaatoo ci itam. assainissement ak tëli ya ña ngi koy defar fi ñu may wax ak yi àggagut ñaa ngi ci liggéey ba yematu ci it sëriñ bi doon waajal ay tool si ñax moom mi xam na ci dara collecteur lu ëpp un ngir bëgg lu mën a yor université bi nga xam ne looloo la ci Cheikh Mamadou Mountakha fas ba mu koy yëkkatee itam nga nga yëg ko nga ne ko loolu dafa diis faaw ma itam loo yëkkatee ma ne sawet nga yëkkati ci état bi loo xam ne lépp loo xam ne war na université bi ci ña fay nekk ak gone lépp mën na leen yor at mi loolu itam yaa ko gàddu suuf ba nga ko defee itam sëriñ bi dane la lii nga ma defee de sëriñ Tuubaa dana la ci beral sa peg bopp kon nag sa digg moom lépp rafet na li ci mujj mooy barki démb motu ñaar fukki fan amoon na yitte sëriñ bi jot la téléphone yónni ma ci yow son industriel bu mag bu ñu war a taxawal Touba boo xam ne ay junni junni nit ñoo ci liggéey ba yaa ngi ko doon topp ba mu ba sab signature des ci ba ñu accès jox la kayit yi da ngaa wax sëriñ bi ne ko incha allah conseil des ministres ñu jëm danaa signé décret bu jaar loolu itam conseil des ministres bi yos na nga ko ko waxee ni ko ko kon nag sëriñ bi nee na mi ngi lay sant di la gërëm ndax lii nga ko jëfe lépp kat Sëriñ Tuubaa nga jëf ko kon nag taalibe Sëriñ yëpp war na leen koo seereel ñu xam fi nga toll ci moom. nee na lam la waxoon nela liggéey da waxoon ne liggéey bi may liggéey Serigne dama la tàbbal ci biir waaye waxaan na la ci téléphone ma toog ne am nga yéene bàyyi réew mi waaye maa ngi lay xamal ne li ci sa kanam mooy dàq li ci sa ginnaaw wax waxaat lay ne la ne la wóor ne yaakaar naa bu ma juum benn yoon ngeen fi jokkoo waat téléphone sëñ bi sëñ bi wax ne ko. sàmm sa jëmm lii fi maa ngi dund dama ko boole sama liggéey loolu mu ni su ko kon ñu ngi lay sant bu baax la gërëm lee ñaanal ndax ñun suñu cant ak suñu gërëm amul solo waaye Cheikh Mahoud Mountakha ku ko xam xam fi mu àgg ci diggam ak boroom xam fi àgg ci Serigne du waxe bakkan wa maa yantiqu anil hawa lépp lu mu wax rek da ko seet ba seetantal ko ba mu wóoru ko lu wér la tax cër bii nga am ci moom am nga kon mi ngi lay sant di la gërëm di jeexale kàddu yi rek ci li waral jataay bii muy musée Serigne Touba bi ndax musée mooy athar ci lislaam jeexit dafa am solo boo demee ci alxuraan suñ borom lu bari dafay wax ne afalam yashiru fil ardi fa yansuru kayfa kana aqibatu lazina min qablihim wala daaru laaxiratu xayru lillazina taxaw afala tanqiloon afalam yasiru yi bari na lool loolu lam ci jullu mooy ñu ñu fàttali ko démb jeexit ñi fi jaaroon bu dee lu baax ñu roye ca bu fekkee koo xam ne dafa doonoon koo xam ne dafa toppoon ba kanam it wala mu nekk ci lu neexul yàlla ak mujjam fa fa fa fa mi mujj fanzur kayfa kaana aqibatu mujrimin kayfa kaana aqibatu zalimin kon afaram yasiru yooyu mooy asar moo tax lislaam dafa bëgg jeexit ñu di ko dundal kon nag bu yàlla defee bu yàggoo de dem naa ci Madina ëpput ay bis ma fekk fa musée bu mag boo xam ñoom sax wax nañ ne président ñaan na leen ko ba ñu ngi koy defar Sénégal waaye ku fa dugg danga xam dëgg dëgg li musée di jëriñ kon loola yéen itam bu ngeen amee xalaat bi kon taalibe yi ne ci ñëpp dugal seen loxo ndax bi nga xamee ne indi nañ foto yi yéen a dajale ci seenu ñaq ba mat mille euros ngeen jënd ko boobu ñëpp ci dugal seen loxo ba ñu agsee sëriñ Xaadim Ngom andi ko ci sëriñ bi sëriñ bi jox leen digal ñu dem ci président bañ demee président yi yëkkatiwaat 100000 euros neen dama koy tabbala ci liggéey bi loolu ci biir ministère bi lay waaye nag na ngeen xam ne kon taalibe yi nañ xam ne ni yoon yu baaxoo dërëm yeeg ñaar dërëm yi la ma suñu bàkk yi bi bu ñu tabal masaalu ko jiran ne ma dërëm yi ñaar dërëm yi kat nañ xamne fu yoon yu ag moo fa agale kon bu ci kenn xeb dara ndax li am solo rek moy yene ji ndax ki am katru ñaari jooni ak ki am katru joxe 1 milliard bu pësee ya tolloo rek kee dana am tuyaaba jee jëfi mbooloo nak loolu la jëriñ kon lay ci ñëpp gor gorlu ta xamne Serigne Touba waxon na ni ihfas mataaya wa ahli wal walad wadiatan indaka fi zati samad ta leralo ne it li nga xamne moy ay kanzam mooy koppar forum xam nga nu ngeen koy firee kanzil kitaabu wala xadis wala adab laa jamu fiddatin wala jamu saab rawatina nag photo bii nga xam ne moom ngeen génneen doon ko tasaare la ci ëpp solo te ñu war ko ci gën jàngate mooy Serigne Touba ni mu fonke woon lislaam ndax xam ngeen ne kat bi la ko jaraloon jug xëy suba teel. dem di tegoo xeer loolu itteelam na ko mooy jàkkee njaarim ji tegoon ko ci loxol Cheikh Issa Dieng ñu defaroon plan bi plan bi jóge woon Turquie sëriñ bi ca loxoom bi tedd ya mooy yëkkati tureel bi wax ne wa iz yarfau ibrahimul qawaida min al bayt wa ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim la ca kiimaane nag xam naa ne ci laa jeexale mooy juma ji dafa am jeexit ndax sëriñ Tuubaa dafa nekk ca Gabon ca maayom ba xëy samp ay bant def ko muy jàkk ndax moom fu mos a nekk daf ci jàkk da koy def jàkk mooy noddu di julli mooy noddu di li xam di julli am na ca kori gam fa njëkk fekke booba moo taxawoon moo moo moo moo moo moo moo julli xayit xutba am ñaari jàmbur yu jigéen taxaw di ko reetaan ndax mosu ñoom xamul lu julli Sëriñ Tuubaa samp ay bant de ko def ko jàkka tàmbali ca julli commandant ba yoroon soldat ndax xam nga ne sëñ bi ci biir ay quartier lañ ko daa lañ ko daa dugal fa ne woon mu daal di xëy daal di mer lool daal di jël bante sempi ko sànni ko ci biir woon daa daane ko fii moom julli mënu fi am te dangaa bëgg yàq sama soldat yi ku ñuy wax yelli sëy ñëpp dégg nañ ko yelli sëy daal di ñëw di xooloo commandant bi ne ko lii nga bëgg a def tegoo ko fen ndax kii bantam yii mu samp ci bunt néegam la ko def xatalul kenn yàqalul kenn mu ñoom ñaar ñu yendoo sëñ bi nee na ñu yendoo xuloo ba ngoon waaye yàlla def mujj ka sampoon bant yóbbu ko ci wana fa mujj neexuta nett li ci mbooloo yàlla def it ba sëriñ Tuubaa jógee Gabon ba ñibbisi ba jaar gànnaar ba jaar yenn Jolof ba ñibbisi njaarim bañ tabax jumaa ji ba mu àgg sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na bind na ko yëlli say ñëw siyaare sa sëriñ bi sëriñ bi boole ko ay ndaw ne ko demal wëri jumaa ja fekk jumaa njaar bi àgg na yëlli dem wëri jumaa ji ba ñëw ba mu dikkee sëriñ bi ne ko na ko ma defee sama bant nga doon sempi yow mu doon xooloo ban te fekk na booba sëriñ bi ba yëf yi da koo metti mu taalif ci ak xasida muy rabbana axrijna min hasihi alqaryati zalimi ahluha loolu ko tanke qasida ga nga tambale ci raditu anil mawla taala lisi rabba fuadi wa ahnani wa akrim bihi rabba bam agge ci la huktub ma salamin bi alihi wa wa jhal bihi masjidi rabba suñ bon xamal ko ne ko nongu naa sa ñaan danaa la may ñaari juma ta ben bi dañ ci rek sabat moy juma ñaari ak juma tuba moy foto bi ngeen doon seen alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh